pour évoquer problème mu ànd sàmm jikko yi dama bëgg taxaw déjà ci tur bi rek ànd sàmm jikko yi ndax ñun ñëpp xam nañu ni en dehors de toute considération que ni ñàkk sàmm jikko yi ci réew mi musiba la ci Sénégal ndax jikko yi mooy sénégalais jikko yi moo ñuy màndargaal bis bu ñu ko bàyyee bàyyi nañu suñu identité te bu ñu bàyyee suñu identité wuti nañu identité d'emprunt jikko yi jaambur boo xamee ne méngoowul ak baaxu réew mi ñu jël ko te lu dof dof dof dof war nga xame ni am na un agenda international boo xamee ni réewu tubaab yi dañ ko ŋànk pour forcer réew yu mel na Sénégal pour dugal leen ci ñoom seen mode de vie seen compréhension bi ñu am ci àddina te seen gis-gisu àddina ñoom wàllu ngóor jigéen daf ci bokk am ci cër am ci taxawaay mais boo dellu see Sénégal loi yi fii nekk fii warta doon ay loi wu tubaab voté wuñu ko pour ay tubaab dañ koy voté pour ay sénégalais te sénégalais bi à cent pour cent laa la wax ni dafa am ngëm-ngëm am pas-pas yaakaar ni digganteem ak boroomam dafa war a feeñ ci dundam am lu muy bañ am lu mu bëgg si njabootam am loo xamee ne sopp ko am loo xamee ni da koy xarab te loolu ñi nga xamee ne ñoo leen di seen i représentant farata la si ñoom su fekkee ay nit lañu ñu inventé ay loi yu méngoog sénégalais yi parce que bala nga naan naam nefa bala ngay laax di jaayi nga laax lekk ba pare. suñu responsabilité première mooy il faut que élite sénégalaise yi que ce soit élite bu mën a doon mu comprendre que ni dañoo nekk ci addina joo xamee ni il faut nécessairement que ñu défendre suñu ay valeurs ak suñu identité ndax man xawma bu fekkente ni sénégalais yi nanguwuñu défendre seen i valeur kat moo leen koy défendre man jullit laa yow catholique la yow yaa ngi ci bois sacré bi ñu ñett ñëpp suñ ñu boolee suñuy ngëm-ngëm benn su ñoom d'accordul ñu xajoo ak wàllu nguur jigéen ak mbon mbon yu demee noonu te nag lu waaye dof dof dof gis nga tey jii ci film yi jóge ci réewu tubaab yi gis nga ci réewu tubaab yi gis nga si seen mode de communication volonté gu ñu am pour forcer ñu par force même à travers les médias pour ñu mën a accepter situation boobu pour que ñu mën a dund situation boobu. xam nga kaano bi lii ngay wax ni dafa am deux éléments yoo xamee ne foofu la ñu wutee bu ñu d'accord ñun ñëpp dafa am ñoo xamee ne dañu naan loi ba fa nekkoon que 66 dafa doy sëkk te foofu la erreur bi nekkee ndax initiative yi ñuy xeex ak initiative yi di menacer suñu identité ident ay initiative yu bees la yoo xam ne dafa am gannaaw 66 te bu fekkee da nga am sa kër mu nekk ci zone buy inondé nga ñàkk a bu njëkk est-ce que ñàkk bu njëkk boobu da nga ci war a yem rek ba hivernage bu ñëwaat rek nga ne noo ñagoon naa bu njëkk ba dootuma ñagaat soo amee sa digg da ka war a colmater da nga ko war a renforcer parce que rapport conflictuel yi ngay am ak bitim réew dafay changer tey ji dañ ñuy wan ci cinéma tubaab yi ci biir canal horizon wala canal nangam wala canal nangam góor ak góor ànd jigéen ak jigéen ànd loolu lan la c'est une forme subliminale pour imposer ñu déjà habitué suñuy doom que ni idée boobu dafa war a nekk mais menace yooyu menace la ci qualité de vie wu sénégalais bi du sec du rek criminalisation criminalisation réponse la début de réponse la ci bitim réew pour d'abord ñu xam ni que ni réew mii suñu la amuñu sañ-sañ fekk leen ci seen réew ñoom pour inventer leen dara te mënuñu ko ñoom tamit du ñu leen permettre ci li ñu moom suñuy doom di fi juddu suñuy jabar nekk fi ñu leen di permettre ñu si intervenir intervention boo xamee ni dina changer modèle bi changer perception bi yóbbu ñu ci foo xamee ni méngoowul ak suñu gis-gis et ça c'est le premier débat le deuxième maintenant mooy que bu ñu taxawee ci loolu les législation loi yi ñu am ci suñu biir réew dafa war a doon ay loi yu méngoog suñu ngëm-ngëm déjà la loi sur la famille le code de la famille 1972 bi muy am sëriñ ci fi nekkoon yépp amul du taal taal du mbàkke mbake du siisi du laayeen du ñeseen kenn si ñoom d'accord ci te jamono yooyu génne nañ ci lu ëpp 100 points yoo xamee ni dafa waroog charia te depuis 1972 code de la famille boobu mooy gouverner le Sénégal xam nga ñun li ñu yàq ñun dafa am si suñu biir ñoo xamee ni dañoo jàpp ni amuñu sañ-sañ ci seen réew ci yenn taxawaay yi nga xamee ni day impacter ci qualité de vie ak mode de vie wu citoyen bi ba nga xamee ni bu ñuy jël ay initiative d'abord dañuy xippi seen i bët xool tubaab bi lan mooy gis-gisam moom ca biti nan la jàppee mbir mi est-ce que moom dina ko neex est-ce que moom dana ci d'accord te ma jàpp ni nag dëgg-dëgg ab loi ci Sénégal dafa war doon loi boo xamee ni première préoccupation mooy ndax méngoog naag sénégalais bi méngoog naag ngëm-ngëmam est-ce que dëppoo naag ni sénégalais bi di dundee parce que loi loolu la war a jariñ pour mu pertinent et c'est là où nous avons un problème tey jii bien au-delà du problème de la criminalisation c'est des problèmes de liberté de souveraineté ci suñu réew ak sañ-sañ gu ñu am pour inventer suñuy doom ak suñuy citoyen société bu méngoog seen ngëm-ngëm c'est légitime c'est normal là je pense que ni ñi bëgg a xajamal mbir mi rek ñoo am perception boobu amul pour opposer benn sénégalais contre beneen sénégalais parce que d'accord nañu man ak yow nii ñun ñëpp kenn su suñu d'accordul ci wàllu ngóor jigéen fi ñu wuutee rek mooy fulla gi si topp après ñenn ñi dañu jàpp ni nañ ko maasale maslaa ni li fi nekk baax na ñeneen ñi déedéet ñu li fi nekk nii dafa am beneen bon lu nekk ci suuf loo xamee ni li muy yàq moo gën a yee suuf te buñ ko arrêté wulee léegi bu ëllëgee kër petax dina lakk lakkaale kër njugub. léegi ñi nga xamee ne gàttañu nañ. ñaari ñaari argument rek la ñuy dawal. benn bi mooy dañuy bañ opposé sénégal yi te ce problème là n'existe pas beneen bi te moo gën a wér mooy dañuy sóoraale jaambur yi nekk ci biti jaambur yi te loolu amul sens ndax réew moo gis tey jii que ce soit muy Rwanda wala muy faneen dañoo am fulla ci seen bopp nit ñi fekk lañ ki seen fulla googu respecté leen te Sénégal bu kenn wax kenn ni lii lu bees la fi déedéet presque ñooy nekk ci Afrique presque ci réew yi ci mujj même ganaar bi daf ko criminaliser Ouganda ce n'est pas un pays musulman daf ko daf ko criminaliser Tanzanie kazalika a noonu Kenya aussi je pense que ni noonu la demee donc question de choix la xam nga li doon wax sànq ci wàllu Russie li ñu doon wax sànq ci suñu wàllu sécurité ñun lu bare bare si suñu héritage colonial dañ kon nangu foqati ko si ay demi souveraineté wala ay quart de souveraineté la ñu yor te lii dafa bokk ci débat bi il faut pas que nit ñi yemale ko c'est des questions de sécurité du point de vue de not identité maanaam sécurité ci sa ngëm-ngëm sécurité ci sa pas-pas sécurité ci sa gis-gis et c'est important loolu réew mu nekk mënuloo bañ a jël débat boobu mënuloo bañ a engagé combat boobu ndax boo nee Sénégal rek wuutale nga kaak beneen réew doonte Gambie la et surtout nag boo ko nee Sénégal nii réewu tubaab yi yow man laaj la ndax ni américain bi di dunde gis-gis gi mu am ci wàllu ngóor jigéen te même foofu sax maasee wuñu fa wala nit tubaab bi ko gisee wala anglais bi gisee que est-ce que ñun moo war a doon suñu gis-gis moo war a doon suñu choix moo war a doon suñu approche je pense que ni ce ne serait pas sérieux et ce serait même dangereux maanaam fitna gudul jeex la parce que benn loi bii di suñu constitution dafa engagé wu ni dañu ñu jàppale ci suñuy ngëm-ngëm ak suñuy pas-pas bu ñu amee menace ci wàllu équilibre ak stabilité réew mi ci wàllu jikko yi je pense que ni la loi dafa war a évoluer ba fekk nit ñi ci seen i ngëm-ngëm jàppale leen si pour mën a teg loo xam ne bu ëllëgee dina aar njaboot gi aar askan wi